léegi Batika. ginnaaw message boobu yëpp jàll na nga doon jullit gis sa mbokk nawle jullit tëdd tawat euh, lu bëree bëri nga génn ci wax ci ba waxee dënn euh, yàlla baax na yàlla moom xam na li ci xol yàlla na yàlla fay keroog lu tax euh, bi mbër yi di daje seen daje boobu gisuñu la ci. non dëgg la bañ ma koy sax yëg naa ko sax mais bu ma gisee ku feebar du ma mën a dem di ko bokkum nit ñi yemuñu. ni 4K wutee oto yi yé avion yi yéemee yi noonu la doomu aadama yi mel man mënu gis xale boo xam dafa tëdd fee ngay ñëwaat nekkaat yi wala ngay wax leen déedéet damay ñaan yàlla kay kii sama mbokk julli leen yàlla na ko suñ borom yëkkati ba mu dox ay suma leen lu may jublu sañ faa jublu loolu la lislaam wax am déet bu dee costume maa leen ko ëpp bu dee jasner maa leen ko ëpp bu dee ay baylaat maa leen ko ëpp ëpp ku fi taxaw ëpp jaamu yàlla man sëñ Tuubaa laa xam ak yonent liggéey am mais loolu dafa rafetul taxaw fi ay ngumbaay yooyu noonu man yu mel noonu soxlu fa de man moo gisee ku tawat soxlaatuma def dara tànk wér man ñëpp xamee nañ ma ko am de loo rafetul dañu waroon an mais ay woote am de ñoom lu ñu yaakaar ñoom seen bopp rek lañ fi nekkal ñoom nekkul ñu seen bopp de man mbër laa dama koy faas yëpp am de lu lu neex rek ñu ni mbër lu am ñu ni ma déedéet ñoom nañu war a feet ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo doon ànd ak mbër ba gaañu am de ñu jàppale leen ci ñoom ñoo ci war a jiitu ñoom ñoo ci war a bu ñu nee bu ñu nee diw ci école bu ñu nee Ibrahima bu nee présent bu ñu nee Aminata bu nee présente xamal ni yow la ñu woo sa tur ñu kenn bàyyi ñu dof dof geeg yooyu noonu ñoom ñoo ci war a jiitu bu ñu am na mbër am ànd ak mbër am déet yàlla dafa def mu soog ñëpp a war a def présent yëkkat feen loxo di ko kaas am de léegi laa di kaas di kaas di kaas mais ñoom da da ngay kaas dem yu liggéey li ñu def seen autorité yi jox leen xaaj ñu nëbbatu seen biir lekk ko loolu baaxul moo tax feebar la ñu mujjee loolu dafa ñaaw Sénégal booy def da koy am ndax alalu jàmbur boo lekk bu ñu nee maa ko jox pour mbëri boo ko lekkee da nga koy génne fii mu set wicc balaa ngaa dugg ci bàmmeel di nga ko sukuraat sukuraat bu sap waaw mi ngi noonu di ko sukuraat di nga mel ni ku jël daqaar di ko macc bopp jën di ko macc ba mu saf sap soog koo déggu ci bàmmeel yooyu dafa ñaaw loolu la ñu bàyyi alalu nit ko ñu ko boole waroo koo lekk am de mi ngi noonu mais lekk fa alal lekk alal lu ñu lay jàppale am de ku loolu rafetul ak xale yi di la ànd di la daw di la door ba nga sonn ah loolu rafetul xale bi dafa feebar man nëbb ma ci dara tey ba mu feebaree soq ci boppam dama ko fa gis chaque mu toog foofu xëy na mais bu yolu sax mi ngi koy ñeewante Ama Baldé gis naa ko fa interview mu toog am de di wax lu rafet ci xale bi mais bu yolu sax da ngay dem teg attaaye non copain lii yàlla la kërëb kërëb xam nga jugal nii xaw koo yëkkat loolu looloo gën a joxe looloo a fort joxe alal dem di fa toog yow boo amul jot bi dee ko amoo jot bi boo ñëwee ko xaalis boo amee jot dee fay toog di dalal xelam. ni ko lii kat mën na dal ku ne. waaw yoonoon na ma dal mënoon na bu ko defee xale bi esprit bi di gën a ñëwaat loolu man gis naa ñoom amaabal ak ñoom soq di ko def di bëgg dégg loolu rafet nañ ci rafetlu naa ci ñoom léegi nag dama bëgg mbër yi nga xam ne ñoo fi ne woowu pour ci mbër mi Pikine la ne wala mbër mi Géejawaay wala mbër mi Parcelles la ne waxuma loolu dama bëgg mbër yi ci boppam comme ñoom yàlla ci am na ñoo xam ñi ngi leen di am di ñu wax ko nànk waxuma sax ñooñu ñooñu dem tel di woon naañ de de nañu woo seen waaye ñu yëkkati benn som ñu yor nànk jox ko ci kër jarul muy fiw jarul muy fiw dinaa la jox benn exemple wala benn message am na ci xale boo xamante ne mobile bu Grand Yoff léegi dama faa dem euh, magam bi nga xamante ne moo jibi ñoo bokk ndey ak baay muy liiru moo wax may dégg nee na dem na ba oto buñ ko may bërki démb nee na ko liiru kaa ñu jaay oto bi dugal ko ci xale bi ci koo xamante ne yaa ngi dëkk Grand Yoff kee dëkk Pikine te Grand Yoff ak Pikine dañuy bëre dëgg la xoolal làmb ni mu a defee. dëgg la mobile mooy mobile waaw mobile xam naa ko sama rakk la mobile xam naa bu baax a baax. magam bu jigéen moo bi woon fii solon bi laay fii sama kanam bi la ñun ñëpp fa lañ doon naan attaay day ñëw noo grand mobile di ku baax barke alxuraan. koo ko woon tey bu ma néew moom da gis mu daw ci ñëw woo xamul di rek noonu la abatika sama mag nga sama kilif nga loolu mooy doomu aadama. mais Sénégal da ngay bëre ñaari combat munoo nit ki de yàllaa lay may nga puuf nga yaakaar ni yaay Ibra leel wala nga yaakaar ne yaay moor dëxin wala yaay moor nopp yooyu amul ci lam danga bëgg bëgg am yar ak teggin ak personnalité loolu la wax ci alxuraan mais jàppale ni mobile di ko nit ku baax di ko ñaanal daal yàlla na ko suñu borom yokk ba mu xam ne yokk na ko mobile ku baax la loolu dafa rafet loolu mooy nit dama ni pooju mbot sax teranga la nettali baa ñaaw billahi wala jiili tey bu ma la ñoon jox pooju mbot da ngay kontaan mais boo ko nettalee dañ naan dafa tuute yooyu day ñaaw mi ngi noon mais teranga la loolu di loolu dafa baax quoi ci jul mais Sénégal kenn nangootul dimbali kenn boo tànk booy jàppale ni sax dañ naan la noonu caméra yi kii ba pare nga soog ma loolu rafetul loolu rafetul di gërëm ñu ñuy gërëm laa mënut a supporter léegi koo gis si këram ñu ngi ay gërëm sonal nit ñi ci tele bi kenn ay ma maa ngi gërëm diw maa ngi gërëm diw mooy DG hydraulique maa ngi gërëm diw moo moom moo moom ngor maa ngi gërëm nit moo moom monument de la renaissance ay ragal leen yàlla te gëm gërëm yàlla ak yonent bi te seen làmma ñu rëy yooyu gëm gëm leen yàlla yàlla la ñu war a gërëm ak njool màkk mais Sénégal def foofu nii man lii munu ma koo supporter quoi ah maa ngi gërëm Ibra Ndiaye ah mooy DG aéroport maa ngi gërëm Pamba Obé Ndiaye ah moom moom tëli bu mais fen yi neen bàyyi leen loolu fii kenn moom fi gàtt yàllaa moom lépp yooyu yu ay yooyu laay bañ mu deñ kuy gërëm na nga gërëm yàlla ak yonent bi ñoo ñoo gën a gërëm ak Seydina Mohamed mais Sénégal dafa mel ni pays désordre la ah rëy làmmiñ comme un grande gueule kenn du ah maa ngi gërëm diw mooy DG hydraulique maa ngi gërëm Ibra Ndiaye moo moom asamaan ak euh, bay bay seen yooyu yooyu quoi jili ban bëgguma lool nit da ngay am yar am teggin am déet am di boo nee gërëm gërëm si yàlla mi la bind ngay lekk chaque heure yàlla mi la bind ngay lekk chaque heure yàlla mi la bind lépp tey ah ki sànni asamaan mu tàkk poo si biddiw si asamaan biddiw mo sa jël concept jant mo sa burle gërëm sant koog di ko gërëm ah am na ñu nekk hôpital bu ñuy saw raakoon lañ leen di bu ñu dem bu ñu ah ñooñu ah te yàlla defu la loolu yaa ngi dem du la neex nekk ci xale yi di taxawaalu def lu la neex boo ñëwee da nga ko sa jëpp tëdd nelaw naan sa coca cola am de boo tëddee ba naan ba ne alxam war nga ne allahu akbar maa ngi sant yàlla rek kay buur yàlla rek a mën mais déedéet maa ngi gërëm DG Ibrahima Ndiaye moo moom aéroport mooy borom mbasang ak borom da waaye yow borom mbasang ak borom bu yàggee borom armée lañ lay dañuy gas mu xot rokk sofa di la fa rokk di la dóore ay xeet ñu pare say mbir laa la for say yére saraxe sànni amatoo dara ci àdda bi dama bëgg ñu sa ñuy gërëm yàlla ak yonent bi looloo fi am bàyyi seen affaire yooyu ne dimbali nit ñi ñu tawan ñi ñoo ñoo ñoo ñooy première ñoom ñooy première munoo fekk nit ku tan di ko dimbali te yow am ñu sonn sa ginnaaw loolu ngistal la loolu yàlla bugg ko yonent bi euh, zéro rek nga ci am zéro rek nga ci am munoo ci am lu baax man nag xale laa lépp loo xam ne juum na ci wax ji rafet na ci wax ji yàlla la lépp lu ci dëng man la ndax ñun noonu la ñu yaree xamuñu loolu Serigne Touba rek lañu ñu xam barke alxuraanu karim mm. Serigne Touba mooy suñu wasila moom la ñu bëgg mm. di ñaanal waa Touba mm. waaw sëñ sëñ di ñaanal sëñ Fallou Guédé bu doomu sëñ Guédé Mbacke imaamu Touba kii naafli juma di suñu suñu kilifa di suñu lépp daal bàyyi ma kenn waa kër soxna may soxna baali billaay mi fi jóge bu yàggul yàlla taas ñu ci barkeem bàyyi fa Cheikh Abdou nday aftu maam jaara Mbacke doomu sëñ ab Cheikh Abdou ñu leen ñaanal yàlla taas ñu seen barke ndax ñooñu bu ñu nekkee ci àddina bu yàlla bàyyee àddina ba léegi kilifa diine yi la barke alxuraanu karim ndax man amaluma leen njariñ ñoom du ñu nelaw guddi ñu ngi ñaan rek barke alxuraanu karim ti muy tiijaan muy xaar muy ceneba muy laayen muy ñëpp ñu ngi ñaan ah yàlla nañ yàlla defar dëkk bi yàlla na ko yàlla su ñoom rek ñooy ñaan ñun ku ci tëdd fàtte nga sax ñaan mais ñoom ñoo fi nekk defaraat dëkk bi ñooñu daal bu yombal xeyam bu bu ñu dugg moom daal ku leen jiitu yombal xeyam àjjana dañ leen a njëkk a dem barke alxuraanu karim billaahi wallaahi taala di leen ñaanal yàlla tax ñu seen barke am den ñaanal ñu ndax ñoom ñooy kilifa yi nga xam ne ñoom ci war a nekk man na xale laa lu juum ci wax ji lu rafet ci wax ji daal yàlla la lu ci dëng man la waaw jii li maa ngi leen sant di leen gërëm vraiment ku baax ngeen loolu daa amoon message boo xamante ne dama ko ciy sànni waaw Cheikh Kouyaté nag mënu ma koo bañ di ndax dafa def lu rafet fii ku def lu rafet ñu wax la waaw ku fi leelit ñu wax ko ku leelul ñu ni diw leelul ma xamal la ci loon mi ngi noonu ba fi Macron waxee dara yonent bi dañ koo toroxal leelam boobu mel ni naaju bu dëpp dañ koo toroxal man senegal rek di atte charia rek moom fi tax a indi billaahi wa te ma wàccoon liggéey Touba laa jëm mm. pare naa samay mbokk pare nañu barkee alxuraadu kër soxloo ma nit mais Dakar moo bëri VIP mm. da ngay gis ko naan Dakar laa dëkk léegi la te boo tourné ginnaaw caaroy firmeer di nga fa gis sa mbokk boo xam dafa xonet boo ko fi jeexee nekku fi demal côté Fuuta boo ko jeexee Fuuta jaaral Tamba wala fen da nga ko fay gis hmm. mais buñ ñëwee Dakar ku ne yéegal costume nangootuma dëkk benn dëkk Dakar laa dëkk xam nañu Dakar kenn dëkk fi lébu yee fi dëkk hmm. kon bu ñu nax nit ñi duñu wax ni ji ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaanal wasaare lamb hmm. ñoo xam daal yàlla na seen mbir wasaare ba tiim télé yëpp daal loolu laa leen ko ja man nag lépp loo xamante ni rafet na ci wax ji yàlla la lépp loo xamante ni dëng na ci man la waaw di ngi leen sant di leen gërëm wasalaam jërë ngeen jëf waay jiili jërëjëf mbokk yi Batika la woon ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax gis nga wax na euh, mais reetaan naa parce que Batika buy wax day wax ak ak ak lu xorom vraiment ñuy ñuy jéggaluwaat bu baax a baax a baax retaan la be xam nga rek Batika moom yàlla xam na yàllaa ko defal xorom soosu munoo jàkkaarloo boobu te dooree ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax encore une fois ba la incha allah ci beneen xew-xew jërë ngeen jëf